salaamaaleykum gars yi nuyu naa leen dal ak jàmm ci seen sport 221 the best sport news channel suñu gaynde yaa ngi wéyal li nga xamante ne mooy seen préparation ci match bi ñu war a am seen digganteeg Zimbabwe ci altine bii lay doon bu benn waxtu ci bëccëg jote tey ji amalaat nañu beneen tàggatu foofu nga xamante ne mooy ca Cameroun voilà match bi nga xam ne moom la ñu war a njëkk a joué ñaari fan a dox suñu digganteek moom lundi lay doon kaan bi nag war ubbi ci dimanche bile muy match bi ñu war a njëkk a joué Cameroun war koo joué événement bu mag bi nga xamante ni tubaab yi def nañ pexe bu ne ngir mu bañ a am agsi na nag ndax benn fan képp moo dox suñuy digganteek li nga xamante ne mooy compétition boobule. voilà gaynde ñoom ci altine bi la ñuy joué le bu benn waxtu jotee ci bëccëg seen digganteeg Zimbabwe boobu mooy doon match bu njëkk mën nañuy wax ne seen matt yëpp sax ci bëccëg bi lay doon même seen match bi ñu war a joué seen digganteeg Guinée boobu itam le 14 lay doon ci benn waxtu ci bëccëg benn rek moom la heure bi changé mooy diggante Malawi ak Sénégal nga xam ne le 16 wala le 18 lay doon bu 16 jotee. lu aju ci transfer ki nga xamante ni mooy Aline Badara Balde moom nag dañu ko able fële ca Belgique ci club bi di Waasland Aliou Balde bi nga xamante ni ñii di Feyenoord Rotterdam ñoo ko daal di woon signé bu yàggul dara voilà sonn na fa joué sax li nga xamante ne mooy ay match gis ngeen ko ci Europa League bi bu yàggul dara muy xale bu mën a football nag dañu ko able fële nga xamante mooy ci Waasland bokk ca Belgique ci deuxième division la di club boo xam ne sax jamono ñoom ñoo nekk ñaareelu place bi maanaam ñoo nekk deuxième ci li nga xamante ni mooy compétition boobu di deuxième division bu Belgique li nag nekk lu am solo ndax ki nga xamante ne mooy Aliou Balde mën na football te gis nañ ne temps de jeu daal foofu nga xamante ne mooy ci Feyenoord daam taxul koo demee noonu kon li nga xam ne mooy able bi ñu ko able dina ko may ngir mu war a mën a compétir bu baax a baax ba suñu dellu si waatee mu mën a bokk ci li nga xamante ne mooy équipe bi nga xamante ni xëy na mun na nekk sax titulaire juróom benn weer daal lañ ko able ci boobu nga xamante ne mooy Waslan nek ci club nek fofu la ci championnat bu belgique numéro 10 nak lay sol buñ sukkas ne ko ci kayiti xibaar yi ki nga xamanteni nak moy benen xalé sénégalais bi nga xamanteni moy mamadou kali sen nek fele ci euh, suisse moom nga xamanteni ne dugal rek lay def mom jamono bu ñu xolale li nga xamante ne mooy partie saison bi kat daf ci wone bopam ndax 12 match kep la jouer gum ak club bobu nga xamanteni moy mooy grasshopper ndax fofu lañ ko able xam nga mom joueuru fc ball la moy basel ñom ñoko ko ci club bi nga xamanteni moy mooy grasshopper zurich voilà mu joué fa lu toll ci 12 matchs moom kii di Kalisen waaye nag bu ñu xoolee ci 12 matchs yooyu nag daf ci marqué lu toll ci 8 bii juróom-ñetti bal dina koy dugal ak 2 passes décisives loolu nag nekk lu am solo ci 12 matchs képp voilà juróom-benn weer nag. dégg nga maam gis nañu li nga xamante ne mooy lii di valeur de marchand daal di ci yokk li ko waral mooy bii yu rëy yi nga xam ne mu koy dugal ci juróom fukki jongante ak ñaar mu marqué lu toll ci 8 bi ak 2 passes décisives li ne mooy valeur de marchand dafa daal di jógee ci 500000 euros dem ba ci benn million bu tomb juróom-ñett téeméer ci ay junne ci xaalisu euro maanaam daal mën nañu wax ne dafa triple sax li nga xamante ni moom la doon jar njëg gi daal dafa dal di yokk bu baax a baax moom mi kii di moom Mamadou Kaly Sène nekk joueur FC Bâle tey footballeur foofu la ca Grasshopper Boubacar Camara moom nag kayiti xibaar dañoo fësal na jamono moom bëggul a génn foofu nga xamante ne mooy ci Olympique de Marseille xam nga moom jamono yi mën nañu wax ne ay weer képp a des ci contrat am waaye nag moom bëgg fa jógee bi la te léegi Marseille nañ jàpp ne duñ ci mos dara duñu ci am xaalis loolu nag xibaar fësal nañu ne am na ñetti club yu mag yoo xam ne ñu ngi foofu la ci Europe ñoo ko contacté wala contacté nañu agent am ngir ne bu fekkente ne daal kii di Boubacar Camara toog na foofu la ci Marseille ba saison bi jeex ñu war ñoom club yooyu le ñoom taxaw nañu ngir signé ko bokk na ca Bayern Munich Barcelone ak Chelsea football club mu bokk ci ñetti club yi gën a mag foofu la ci Europe jamono ñoom ñëpp ñu ngi xaar kii di Boubacar Kamara daal di jeexal contrat am su ko defee ñu defi pexe ngir war koo mën a signé librement mu jóge foofu la ci Olympique de Marseille loolu waral na ba kii di Boubacar Kamara jamono a génn foofu la ci mois de janvier bi la te it Marseille ñu ngi defi pexe ngir war ci mën a am te noonu pexe yooyu bu jubee ñoom duñ ci am benn dërëm bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi li nga xamante ne moo aju ci tirage au sort ci match barrage yi nga xam ne war nañu ko jouer ci lii di coupe du monde bi voilà tirage boobu nag dinañ ko amal le 22 janvier maanaam ci coupe d'Afrique nga xamante ne mu ngi tàmbali bu ñu ko dawalee ba ca kanam daal ci la ñuy amal li nga xamante ne mooy tirage boobu kon Sénégal dina xam war a dajal ci barrage yooyu le 22 la ñuy amal li nga xamante mooy tirage au boobu le ku nekk di nga xam kan nga war a dajal match yi nag ñu ngi ko war a jouer ci li nga xamante ne mooy mois de mars bu ñu sukkas ne koo ci xibaar yi li nga xamante ni nag mooy yenn ci ay joueurs africains yi nga xamante ni waroon nañu mën a dem jouer ji ci CAN bi ñoom nag la ñëw war leen ñenn ci ñoom ñi nga xamante ni mën nañoo wax ne sax seen doon africain dafa jaaxal ñu bari ndax des na ñëw gëm seen bopp lu toll ci juróom-ñetti joueurs ngi ne yoo xamante ni kenn ku nekk ci ñoom waroon nañ ko mën a gis ci CAN bi waaye daal dafa tànn dégg topp këlëbam ak lu neex këlëbam ba waral ba joué jiwuñ mooy Coupe d'Afrique bi bokk na ci mooy Sékou Fofana moom nag joueur xamante ne international ivoirien la waa Côte d'Ivoire la moom Sékou ak ki nga xamante ne mooy Séck Doucouré voilà moom nag koo xamante ni la joueur malien la waaye moom nag demul ci li nga xamante ne mooy CAN dafa desee gëm boppam voilà ki nga xamante ni itam mooy Abdel Issaouli nekk joueur boo xamante ni Maroc dañ ko convoqué woon waxoon nañu leen ko fii moom itam demul ki nga xamante ne moom la ñuy wax Mahdi Camara joueur gambien la moom itam demul ki nga xamante ne mooy Zaïre Youssouf Comoros la dëkk moom itam demul Joel Matip bu Cameroun xam ngeen ne moom sax moom daanaka ay mbiram bam bam commencé lëndëm yàgg na ndax coupe d'Afrique bi nga xamante ne Cameroun ñoo ko jëloon en 2017 boobu sax bi ñu ko wooyee moom itam dafa demul woon li ko warloon rek mooy bëggoon a jouer ak Liverpool ndax jamono yooyu lañ ko soog a jënd mu bëggoon a am place foofule bëgg lu neex clubam waraloon ba mu toogoon ci li nga xamante ne mooy clubam tan jii doon la defaat moom kii di Matip bokkul ci kan bi voilà dese nañoo gëm seen bopp bokk na ci tam ki nga xamante ne moom la ñu wax flix Afena Gyan moom nag joueur la boo xamante ni international ghanéen la moom itam bokkul ci kaan bi ak André Delors bu Algérie ñii ne ñëpp gisuñu leen ci CAN bi li ko waral nag mooy ñoom dañoo def seen bopp daal ñoo xamante ni xëy na euh, gëmuñu daal li ñu doon voilà seeni club lañ topp bëgg lu neex seeni club képp moo waral ba kenn ci ñoom joué wul ak li nga xamante ne mooy dëkkam te waroon nañ leen mën a gis ñoom ñëpp ci li nga xamante ne mooy CAN bi transfert ki nga xamante ni mooy Philippe Coutinho dal dina jógee Barcelone dal dinay signé fële nga xamante ne mooy ci Aston Villa dañu ko appelé nag ñeent at gannaaw bi mu jógee foofu la ca Angleterre xam nga moom Liverpool la nekkoon di jouer ak ki nga xamante ne mooy Steven Gerrard voilà Steven Gerrard ak Philippe Coutinho joué nañu ci club bi di Liverpool jamono yi nag Steven Gerrard mooy entraîneur bu euh, Aston Villa moom nag moo waxtaan ak Philippe Coutinho ba mu fekk ko foofu bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi ci ñetti fan yi ñu génn rek Gerrard contact na ki nga xamante mooy Coutinho ñetti yoon woo na ko téléphone lu toll ci ñetti yoon ci loolu nag ci la Coutinho daal di nangu daal di jógee Barcelone fekk ji ki nga xamante mooy Steven Gerrard foofu la ci Aston Villa mu war fa am nag juróom-benn weer maanaam Barça dañ ko able ñoom ñii di Aston Villa sax ñoo war a fay li nga xamante ne mooy 65 pour cent ci li nga xamante ne mooy salaire am ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar ki nga xamante ni mooy Philippe Coutinho dafa wàññi li nga xamante ne mooy salaire am avant muy génn foofu la ca Barcelone. léegi nag li nga xamante ni tam moo aju ci salaire bi comme ni la ko waxee 65 pour cent bi ñii di Aston Villa war ko fay lii moo waral sax ba Barcelone war a mën a registré ki nga xamante ni mooy Ferran Torres jamono mën nañ ko inscrire ci li nga xamante ni mooy équipe bi ndax bu fekkonte woon ne Coutinho génnul wala mu def geste boobu mu def ki nga xamante mooy Ferran Torres faw beneen joueur dem wala ñu wàññi salaire bu baax a baax ñu koy doog a mën a inscrire jamono yi nag Coutinho dem bi mu dem ak salaire bi mu wàññi waral na ba mën nañu inscrire ki nga xamante ne mooy kii di Ferran Torres bokk na ci équipe bu Barcelone buy sukkandikoo ci kayiti xibaar yi. ki nga xamante ne mooy Zinedine Zidane moom jàpp nañu ne mois de juin bii di ñëw mooy nekk coach bu Paris saint déggoo am na digganteem ak Paris ki ne mooy Mauricio li muy def rek mooy àggali bi bu jeexee mu takk ay bagages am dem Zidane mooy ñëw tàmbali li nga xamante mooy liggéey bi te loolu sax kayiti xibaar yi ñu ngi jàpp ne mën na am ki nga xamante ne mooy Kylian Mbappé dina ceeñ maayinam daal di des foofu nga xamante mooy ci Paris saint comme Zidane mooy ñëw daal di ki nga xamante ni nag mooy Paul Pogba moom Manchester United dañu koo tegal ci taabal ji benn offre boo xamante ni mu ngi toll ci six cent mille d'euros chaque semaine bu fekkente ne nangu na prolongé dinañu ko fay lu toll ci juróom benn téeméeri junne euro semaine bu nekk loolu nag buñ koy xeemal dina romb sax lu toll ci trente millions d'euros romb na ko di dem voilà moom kii di Paul Pogba loolu rek Manchester United ñu ngi ko def ngir bëgg ki nga xamante ni mooy Paul Pogba daal di extend contrat am des foofule.